gis ba alxuraan wàcc dajale naar yëpp day mel ni man sama war a fa ñu denc yeneen bi dajale naar yëpp boo leen ñi ci àdduna bi yëpp ñi bañ tay seeg ñëpp ci dajale ko daal moom tamit premier premier premier bi nga xam ne Cheikhoul Khadim yow bañ tay sa sëñ waaye may leen ko mu jàll may leen ko mu jàll voilà sama frère laaj sama yéene di jaay dem dindi ci taxaw fee Thank you. وإني صغير فقد اختيان ñu liggéey mais ngir yàlla si dëgg gaay pis na ko defee nañu may sëriñ bi mu dugg si rek nañu may sëriñ bi mu dugg si bu nu mënee wàññi coow li itam farata la ci sëñ Xaalif bu ñu daanalee rek nga wax ma bu demee ba jeex La presse, avancez s'il vous plaît, avancez. Allez-y. La presse, allez-y, allez-y. Am, am. Allez-y, grand. Am ngeen libre accès, allez-y. Presse, arrière leen, arrière leen. Arrière leen, presse. Arrière leen. Arrière leen. sëñ Hadi kontaan nañu bu baax baax ci formation ci li nga def yi bu ko defee rek Wally Seck itam wax nañu ni mooy dugg si nii ñu bàyyi leen ñu dugg si nañu leen bàyyi rek dugg si jaale magam xaritam lu Bougane ne mu ngi ci lu mu ne Bougane ngi ci na wax naan Diaga sama maam la waaye soxla moo ñu mooy sama yaay waa léegi loolu di dugg si di jaale magam goroom xaritam daan na wax lu bari yoon itam ñuy dégg muy wax ni man muuñu mooy sama yaay Diaga mooy sama maam démb yaakaar naa damay wax ni si internet yi yëpp tiktok yi tax na dara umpootu yoonu aéroport bi yëpp boo dee xool ci tiktok yi da nga gis muy jooy ngir ki mu ñàkk ni mu toll ci moom complice bi doxoon seen diggante ñoom ñaar xaritoo bi doxoon seen diggante ñoom ñaar tabaarakallah bugaan nag sa sëriñ a ngi nii di ñëw bugaan tabaarakallah ñu may ko rek mu teeru sëriñam na toog rek ñu may bugaan ñu toog rek nañu toog Xaadim Samb mu ngi nii di jaale si neena mu ngi nii maa ko gënt yàlla dogal na ni bi ma ko nee àdduna bés bi bi mu dellu see xar bi ñu ne ni ma ni ma ko fes waaye mu ngi di bugaan mu liggéey ak man. ci seen wala sa jàmba wala sa aw fit wala sa jub wala sa def liggéey ba def liggéey. ba waaw dafa nànk puso rek mu jàll. suñu mënut a wax dara. waxaar ay ba lay daay. may kii mu jaar ci instant bi.

Aziz xooloo Ariane. maamam bi jur yaayam moo ko bëgg a gis. may leen ma ma ànd ak may leen ma may leen ma ma ànd ak may leen ma ma ànd ak may leen ko mu ñëw. bay leen ko maamam bay leen ko maamam man sa fekk man sa man sa man sa man sa man sa fekk man sa waaw xaalis da koy jëli waaw tante ñaanal ko rek ñaanal ko rek ñaanal ko tante bu ko def waaye tey leen bàyyi leen ko ak maam Mariasin Massa. Mariasin Massa. baana maam baana maam. doy na sa maama ngoog Massa. ndeysaan ndeysaan. waaw da ngay gaañ sa maam nag Waly. Waly doy na da ngay gaañ sa maam nag. ndeysaan Massa Mariasin. baax na may leen tante toogal. ja ah tante toogal Massa Massa. defal ko ndox defal may leen ko ndox. jëlal ko ndox merci beaucoup. aywa bàyyi leen ko ndox jërëjëf nag. lu ngi ci lu na wax naan. jaaba sama maam la. waaye soxla moomu mooy sama yaay. waa léegi noonu bi dugg si. di jaale magam. goro xaritam. daan na wax lu bari yoon itam ñuy dégg. muy wax ni man moomi mooy sama yaay. jaaba mooy sama maam. démb yaakaar naa damay wax ni site internet yi yëpp tiktok yi tax na dara umpootu yoonu aéroport bi yëpp boo dee xool ci tiktok yi da nga gis muy jooy ngir ki mu ñàkk ni mu toll ci moom complice bi doxoon ci seen diggante ñoom ñaar xaritoo bi doxoon ci seen diggante ñoom ñaar tabaarakallah bugaan nag sa sëriñ a ngi nii di ñëw bugaan tabaarakallah ñu may ko rek mu ñu may bugaan